galgal na ko daalil na ko ndaw lewaatu programme yu bëre la buñ leen di isiri alxamis bu nekk si GRTS dama ne ànd leen nag lingeeri GRTS mu isiri leen làmba yi nga xam ne moom ngeen soxla dina fekki naka bërekat yi si seen tàggatukaay yaram waaye tamit dina waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo xam làmbi démba ak làmbi tey programme bi nag dinañ leen ko isiri alxamis bu nekk si juróom-ñeent ni di kur bee jàppale nga xam ne mooy ndubi war yoobi galgal na gal na galgal na ko daaneel na ko ndaw lu Yo, great. Gambia Wrestling Federation. Yeah. and a meal from me, champiola, and a boy palmal, champiola, and a okocha mom, champiola, one mama cha champiola, and a amasen, champiola. La voy a dégg nga dégg nga sanse bi moom rafet na jàkkaarloo la caméra bi nga wax ñu kan moo la solal balaa ñoo gën a sori si waxtaan bi waaw bii anti kumba moo ma am ah, tey gis nañ ne macha allah dugaat nga si bore bi saa su nañu lay ñaanal gudda fan ak wér macha allah yaa ngi bore bi di ko yóbbuwaat feneen waaye nan nga gisee tey bi si tey waaw li ngeen xanaa ñu doolee santaat yàlla rek julli si yonent bi Seydina Muhammad di kontaan si nit ñi niñ teewee fii tey ku gis li xam ne bëre Gambia mu ngay jëm kanam rek di gërëm suñu sponsors yi ñi nga xam ne Sénégal lañ jógee ñoo ñu jàppale pour lii mun a dem. ñoom kan kan. mooy gars yi best yi ak lakle mooy ñi nga gis ñu solal gars tey fii li ñuy sol nii Sénégal lañ jógee best ak waa lakle gars yi panteer yi. Gambien si amuloo ñeen ñu la sponsor. waaw bëre bi mu amul benn sponsor bu jógee Gambien. da dem nga lijanti ko. lijanti naa ko waaye mënut a possible. incha ñaan yàlla pour next year. xëy na suñu gisee lool loolu na leen isi next year incha allah di ñi di nuyu wàllu njiiti réew mi di nuyu ñëpp ñoo xam ne ñuy Gambia ñëpp ñoo xam ne jàpp nañ si bés bi rawatina staff si Ndiaye Godeh promotion bi jërëjëf next month bu soobee yàlla li nga xam ne mooy bëre dina tëj fii si réewi Gambia ñu bëgg a xam yow kañ ngay tëj sa bu làmb ji waaw am du ne daal bi mooy suñu laas bëre waaye lool laa yaakaar daal waaye dafa des si nit ñi luñ bëgg a daal su nit ñi bëggatee beneen suñ ko laajee mun nañoo tëggaat beneen gaaw balaa weeri koor gi waaye ñu ngay jéem a seet daal liggéey bi tam dafa métti waaw nit ñi di leen bugg a beneen jaay ko rek pare na mu tëggaat beneen waaw loolu kay kon nañ ko def su dee loolu bëgg nañ ko moom dinañ tëggaat beneen du ñu bëgg jërëjëf waay a sama kër gi nee na Sa Thiès Borel boo boree da ngay daan Sa Thiès Borel waaw ba am nga ko ah léegi ma asalaamaaleykum baaba. waaleykum salaam rahmatulah. ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay sant naka nga tudd. maa man Seydou Balla tudd. ñu ngi gis tey si làmb ji ban bànneex nga am si loolu. waaw bànneex bu neex la rek diggante Sénégal ak Gambie dafa war a tax ba nga xam ne moo ëpp foofu man nag man maa amee Sénégal yi nekk Burfour. man ma seen mag bi foofu Seydou Ba Seydou Ba waaw laa tudd lan ngay wax Ndiaye Goré nga xam ne saa su ne macha allah mu ngi tëgg a làmbal Ndiaye Goré lan nga koy wax ah kay moom xam naa def na lu war rek xam naa su su moromam bëree fii xam naa dina dem ci kanam incha allah ratax dina ratax ngeen ñaanal ñun ñu lay ñaan ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla fay yàlla na ko yàlla may ngéew may ko loolu yàlla may ko télé yu bëri mooy fifty kooku nag macha allah ku ko rek yaa ko tey millennium, will you quy đán guy gi moo koy daan yow saam nga loolu. guy gi ak fifty kuy daan. waaw ñun da guy gi ñu tax a jóg moom guy gi la ñu ñaan yàlla mu daan yàlla may ndam nag yàlla ñu yàlla may ndam. xoyantaan ak mbooraan ma loo xam ne moo dàq lem ndam li kër ndongo a la jëm si kàttanu yàlla. kan mooy daan xoyantaan. xoyantaan a mbooraan kan mooy daan. waaw xam nga man moom ñoom ñëpp suma mbokki champion na xam nga du ma mën a wax daal du ma mën a lifin daal. xoyantaan ak mbooraan kuy daan. laa ngi ma lu ma kontaan na mbooraan kuy daan. ah xoyantaan ay daan kay. naka de xoyantaan ay daan. xoyantaan moo mën ku mën mbooraan. xoyantaan moo mën mbooraan. yow xam nga